jàngalekat di ko jàmbat ñiy jàng di étudiants yi di ko di ko xultu itam ngeen ni na ku ne toog sa kër ñu envoyé la euh, njàng mi ci sa téléphone nga jàng euh, loola euh, lu tax rek noona te ubbi wuñu université bi ubbi dëkkuwaay yi boobaak léegi rawatina université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru pour jël benn misaal. jërëjëf maa ngi lay gërëm ci laaj bi. Euh, déjà dama war a leeral ni euh, université yi maanaam juróom-ñett lañ juróom-ñett euh, université Berger ñu ngi jàng fenn en tout cas ñu dafa am problème aussi université Ziguinchor ubbi nañ ko foofu problème bi ñu amoon mooy étudiants ñoo grève mais yàlla dafa def négociation Euh, université ñetti université euh, comme ga kii bu Kaolack bu cees ak bu Bambey lépp noppi na pour ñu ubbi ko maanaam dañu amoon jafe-jafe ak ñi ñu tuddee repreneur ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu maanaam lekk bi ci université yi ñoom dañu waxoon ne dañu leen yoral xaalis bu takku il faut ku ñu fay leen pour ñu door a reprendre ñu ngi négocier ba ministre finance finances na di leen fay Euh, ci lima sax Kaolack repreneur yi ñoom nangu nañu tàmbaliwaat liggéey bi donc foofu ne université bi day yeneen yi gëm ba semaine war nañ régler problème pour ñu université numérique Cheikh des ñoom tamit ñu ngi seen euh, comme d'habitude maintenant problème bi ngay wax université Cheikh Dakar université de Cheikh de Dakar conseil académique bi moo réunir dañ d'abord assise manam wax ci li de fi dina ci ñëwaat un défé assise ñu conseil académique conseil académique manam conseil bobu mom moy wax nan la qui euh, tëralee ci université de Dakar Nous problème le 1er juin 2023 ñu basculer enseignement ci yu à distance ñom dañu bëgg ñu jéxal année bi

Le euh, naa jox nañ leen ba wala conseil académique bi dogal yëpp moom la gouvernement itam du non xam nga bon yow ko non, euh, ñun li ñu bëgg université yi dox normal maintenant conseil académique moom réalisme peut-être ñu xool toog gis ne non, la mais li bëgg wax aussi xam nga Georges nous war rappeler li xew xewoon université de Dakar am nga université de Dakar comme ni ma koy faral di rappeler ba jeudi 31 mai 2023 amul grève étudiant amul grève PATS amul grève professeur ñu jékki-jékki yeew mu am ay étudiants en tout cas à euh, manifester mu am ñeneen ñu jóge ci àll ci Dakar partout ñëw toj université ba maanaam toj euh, lakk nañ fa bus minimum yàq auto jàmbur auto personnel auto professeur yàq ko ñu toj eh, ñu ñu lak ay amphithéâtre ak lenen ak lenen ak lenen bu musiba bu mëna mëna mën a na fa am parce que direction générale COUD dañ ko lak ay restaurant ñu toj ko donc lolu bala ñu fay delluwaat je pense que ñun ñep war nañu xol ci anam yo xam ne bu ñu fa delluwaatee mun nañu gëm ne ñu du euh fi bu ñaari at mais au moins mu baña amat

pour ñu mun ko euh, defaat beneen. yëf fi def na six mois de six mois ngi nii. six mois liggéey six mois defaraatu leen université bi. non mais euh, defaraat defar defar université mun na jël ay ati at mais defaraat ko aussi <laughs> kenn moom euh, est-ce que war nga mun a wax ne en six mois mënoon nañ ko defar donc ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy liggéey mais li gën a am solo mooy comme ni ñu ko waxee mooy kaaraange université bu Dakar gëm nañ ni COUD ni mu doon fonctionner ci affaire kaaraange loolu.

ngank loolu li ñuy def c'est professionnel gëm naa ni bëgg nañu Sénégal bëgg nañu université politique ñàkku ci dé monsieur le ministre. xamna xamna da ngeen bëgg rek euh, université bañ am étudiant fii ak élection yi di weesu xamna naa ngeen bëgg. non loolu euh, comme ni wax yow am nga sañ-sañ xalaat loolu mais ñun en tout cas xalaatuñu loolu. Euh, calendrier académique bokul ak calendrier bu manam est-ce que étudiant yi dinañ jàngi bala élection présidentielle. mais ñu ngi jàng maintenant ñu ngi jàng maintenant est-ce que dina ñëwaat ci l'élection élection présidentielle loolu man date boobu du man maa comme wax naa la am na kuréel bu ñu pour ñu réfléchir ci loolu nous bu ñu joxee seen conclusion bu dee euh, fin novembre ce sera fin novembre bu dee nee fin décembre ce sera fin décembre mais li que bëgg a wax mooy dañuy wax ne politique moo tax mais politique peut-être ñu toj ko parce que comme nous ma waxee comme amul benn conflit à l'université de Dakar le 31 mai 2023 bu le lendemain bu ko talé ak gi gis mu vraiment metti aduna bi donc peut-être ñom ñi ko doon def politique motax ñu def ko peut-être ñëwaat di politique ñu ñu enseignement à distance bon, nga xamantene mom lañu euh don def euh, gannaaw événement yu juin euh, ñu bari ci étudiants né nañ enseignement à distance bobu doxut kon est-ce que buñ ko fasiyene yéene euh, est-ce que du du leen gën indil galancor ndax amna ñen ñi nga xamantene ils n'ont pas les outils amuñu connexion internet ñooñu duñ mëna jank bu baax. non xam nga vous savez 2020, 2020, buñ amé Covid lan mo sauvé année académique bi fi ci université Sénégal yëpp ci ak àdduna bi ah. France États-Unis ak fu ne enseignement à distance mais problème bi ñu le 1er juin 2023 bu enseignement à distance année blanche la ñuy def loolu lu la donc enseignement à distance bi moo ñuy permettre ñu sauver année qui bi nga xam ne bu année blanche la ñuy def donc munoo ñëw yàq université après ñu jéem la sauver ci benn anam bo xamné en tout cas def nañ ko deux années avant nga ne yow bëgg loolu. kan mo yaq université bi. ñi ko yàq mais ñun ñëpp ko gisandoo am ay étudiants. non bu ma ko est-ce que euh, c'est la responsabilité des étudiants li xew euh, est-ce que enquête yi lu mu wane parce que enquête yi kenn xamu ci dara euh, xamuñu évolution yu bëri ci ci ci yef yi responsabilité yi situé guñu ko est-ce que kon les étudiants doivent être les seuls à à payer la note. non mais amna ñu ñu tëj ci lolu defe naa ñu ñu japp donc lolu mbirum police le. Euh, man du ma ci mën a mais li ma li ñëpp xam moy ñi ci def ñi ko def ay étudiants bokk nañ ci naam gëm nañ ni dafa am ñu jóge fenen ñew jàppale leen ci lool te monsieur le ministre travaux yi ngeen sumb foofu comme né nga xamoo euh, kañ la cour présentiel di door mais yeen nga xamanté yeen sumbu ay travaux foofu ngir defaraat la nga xamanté mo fa yaqku ban dara ngeen fixé wu ci travaux yoyu non xam nga je veux dire travaux par exemple defal directeur mais li on sait qu'il y a autonomie de gestion certes. mais ne oui oui mais je veux dire problème bi problème bi du question seulement defaraat mais mooy question bu ñu wax ne mooy léegi ginnaaw amul benn conflit ñu am lii gëm nañ ni balaa ñu fay dellu indiwaat fa il faut que bi yi mu ñoom ñoo tab seen kuréel nee nañu léegi boobu jox nañ leen fii ba ay délai bi ngeen wax nan la ñuy mën a ci université bi jàng bi mën a ñu yaakaar ne duñu amaat événement yi ñu am le 1er juin 2020. mais defar yenn bâtiment yeeg amphithéâtre yéen yéen a koy financé gouvernement bee koy financé. waaw loolu ñu ngi ci. on a déjà marché pour defar amphithéâtre bu fac droit bi loolu <laughs> presque noppi nañ ci euh, euh, am na ay yàqu-yàqu yu ndaw yoo ñu ngi koy donc mais encore une fois boo ko il faut que nga il faut que mu am kaarange boo xam du dina que suba nous def loo wala def lu en présentiel c'est pas pour demain. Euh, kan mooy demain. demain demain <laughs> c'est pas pour demain. mais mais monsieur le ministre euh, lii indi ci mi Euh, am ngeen ci responsabilité euh, fitna gi yeewoo ci réew mi tam yéen taq ngeen ci jàppaate gu bëri gi euh, tëjaate yeek xoqatal yeeg yooyu bokk na ci lii yee fitna yee fitna biir Sénégal rawat na su mel ni université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak yeneen université yi am déet. ah loolu vraiment Georges <laughs> comme ni ma la ko waxee ne kii dama tuddee Babacar loolu sax xalaat bopp la man loolu gëmuma ni ñun bokk nañ. jàpp jàpp leen ay nit. ay opposants tëj Sonko. Euh, mais ah, mais mais jàpp ñeneen. am nga George yow tey da nga ñëw fii liggéey kenn jàpp la mais ku ñu fi jàpp Sénégal dafa am lu tax ñu jàpp la loolu mooy sama xalaat. SAES doon yëglu fan yi passé daje nga ak ñoom. Mhm. ñoom nee nañ ci ndaje moomu jëriwuñ ci dara. waaw dëgg naa li ñu wax mais en tout cas ndaje boobu def nañu 17 heures ba 20 heures na ak SAES parce que SAES man membre SAES la. sama équipe yëpp membre SAES lañu donc xamante nañu vraiment suñu discussion ci dal ak teggin lañ koy def amul ñu benn problème dañ ñëw ñu ne pour ñu xoolaat suñu protocole d'accord bi ñu signé woon euh, defe naa le 6 janvier 2023 fan la ñu toll te boo xoolee def nañ ci jéego yu bëri pàcc bi amoon gënoon am solo mooy maanaam yokk peyooru enseignants yi loolu moom demee na boor te enseignants yi wax nañ ko waxaat ko SAES wax na ko waxaat ko président Bakisa, Sall li mu defal enseignants supérieurs sénégalais yi mooy professeurs yi. mais leur principal revendication à ce jour moo di reprise des cours. non non loolu bokkul la réouverture de l'université loolu bokkuloon en tout cas ci ci ci plateforme bi euh, plateforme bi en tout cas lu ñu fa nekk li bëri maanaam en tout cas dellu dem na féete na bor maintenant ñoom dañu dugal effectivement ñu ne dañuy ñaax pour nous reprendre université en qui euh, université chaque reprendre en présentiel lolu ñun wax ñu leen contre dañ contre enseignant bu ne animation ci université bi et cetera parce que comme ni ma université peut-être enseignant buñ lu du gis même man à collègue français par exemple yeen say donc mais aussi d'accord que pour une question de sécurité cette sécurité bop avec professeurs il faut quand même que ñun ñëpp ñu d'accord ni amnañu nañu né karangé gi yokk na ci université Cheikh mais lenen lenen war nañ ko ci toftal mom moy les nouveaux bacheliers yi nga xamné ñom ñoom wara orienter war a orienté bu ñuy parewul ñooñu kañ la commencer jank non non non c'est-à-dire xam nga euh, orientation bachelier sax war naa ci wax aussi parce que chaque année daw, heure nous ñu ngi démarrer process orientation étudiant bachelier ba nouveau bachelier ren urbini presque noppi plus de 80% des bacheliers déjà am nañu euh, proposition d'orientation presque 40 000 fay nañu déjà une inscription donc loolu on est en avance de deux mois par rapport à euh, année bi passée donc foofu yeneen université comme li ma la wax amuñu benn problème donc ñooñu dañuy reprendre comme nous ko reprendre li li ñu am kay peut-être mois d'octobre bi nga xamné ñak nañ ko parce que ci université yooyu mën nañ reprendre mais repreneurs yi ñoo ñoo indi jafé jafé donc hmm. lolu mën nañ ko rattraper. maintenant pour université de Dakar boudé enseignement c'est en ligne pour euh, les les anciens donc pour les nouveaux ça va être en ligne lolu mom lu leer la. Hmm. am bac rek commencé en ligne tamit vraiment. mais attention hmm. mais am nañu ñaareelu université bu Sénégal bi. boo amee bac ba nga pare. Hmm. université numérique Cheikh Hamidou Kane. Hmm. ba nga amee bag ba pare. ba nga génn foofu ci ci noonu ngay jàngee. waaw d' accord te am na ay cadre yu bëri léegi ci Sénégal. dañu lay woon CV boo xam ne euh, am nañu diplôme Bordeaux feneen ak feneen mosuñu fa dem. d' accord mais bu fekkente ni daal euh, ubbiteem université bi ngir nit ñi teew fa da ngeen ko wékk ci élection yi xaw ma kañ lay na élection yoo xam ne ñu ngi laam-laamee ni. Euh, am na ñeen ci yéen ñu bëgg ñoo xam dañ ko dañ ko bëgg a tuxal euh, reporté ko euh, ànd nga ceem Babacar hmm. man ministre de l'enseignement supérieur du Sénégal li ma wax mooy wekkuñu ubbi université ci élection d' accord dégg nañ sa tontu mais élection yi report bi report bi bu ñu ko bëggee tuxal ànd nga ceem non mais report élection moom man mosu bëgg dégguma ko fenn dama koy dégg ci journaux yi man vraiment loolu Euh, fan déjà donc je ne peux même pas me prononcer pour moi, l'élection euh, euh, présidentielle au Sénégal c'est le 25. est-ce qu'il y a un seen candidat bi ñenn ci yéen ñi koy attaqué Souleymane Jules Diop Abdoulaye Bibi Baldé bi nga bokkal Kolda attaqué na Amadou Ba nee dal, dalul xel est-ce que noppi ngeen looy tontu Bibi Baldé déjà. non xam nga man tontante ak Bibi balde man man dina dama koy wo wax ko limu ko wara wax mais limu bëgg wax moy Euh, li may wax samay euh, collègue ci majorité bi mooy euh, campagne ñu ngi ci pré campagne ñu ngi ci parrainage donc damay ñaan ñi nga xam ne ñun ñoo bokk benn bokk yaakaar te am suñu candidat gëm ko xam ne ñun plan Sénégal émergent la ñuy défendre bu dee dafa am li ñuy ŋaññi suñu candidat ngir yàlla ñu dem wax ko moom directement moo gën li ci des mooy Kolda man li ma bëgg a wax ci Kolda gis nga région bi gën a organisé ci wàllu Benno Bokk Yaakaar fii ci Sénégal mooy Kolda. ah Bibi Balde jaar ne Mame Boye Nous jaar non ah. wax la ñun Benno Bokk yakar Kolda ñun ñoo avant sur les 40 maires et les 3 présidents du conseil départemental devenant ñoo ne jox nañu carte blanche. lolu bu pare ñu déjà dajawaat Kolda ñun ñep defena maire encore ñoo ñewul ne candidat Amadou Ba validé nañ ko te incha dinañu nous pare ne ko Pouladou mu gagner région Kolda. loolu presque amul benn cohésion. est-ce que euh, wax ànd nga ceeg moom ne Amadou Ba du candidat buy dalal xel. non loolu mënu ci ànd cest à moom li ma koy ñaan moom mu dalal xel Ba moom mu dalal Amadou Ba li mu koy dalalee mooy mu indil ko parrainage yu bëri mu fexe ba euh, ñëwaat ci dynamique bu ñu nekk fële ci benn bokk yaakaar parce que ñun man wax naa ko partout xëy na wax naa ko fii euh, li ma gis mooy ñun dañuy joxoon Macky Sall carte blanche. en tant que apériste Benno Bokk Yaakaar tànn candidat muy Amadou Ba wax naa ko waxaat ko euh, Amadou Ba ñun am nañu bilan boo xam ne Sénégal yëpp gis nañ ko Amadou Ba il a profil di job gëm nañ ni euh, bu ñu en tout cas góorgóorloo tuuti dinañu am victoire bu rëy le vingt cinq février deux mille euh, vingt quatre ci loolu lañ nekk. ndax da ngeen ndax da ngeen jàpp ne y a quelque chose qui se cache derrière seen seen démarche ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy ŋaññi Amadou Ba dinaan il ne rassure pas euh, voilà. mais loolu xanaa nga laaj leen li may wax rek mooy. en tout cas loolu amul ñeneen ñi am euh, xalaat googu sax te te waxuñ ko nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar wala biir biir APR ci boppam sax. mais xam nga ku nekk da ngay assumer wu man li may wax daal mooy bu ñu waxee ne dafa am lu bëri lu ñuy wax ci suuf man du ko wax ci kaw loolu man xalaatu man loolu loolu c'est une bonne idée donc. Euh, euh, maanaam dafay nekk bu la bu bu bu làmb bi commencé daal sa mbër bi danga koy dooleel di ko kii. Hmm. ñu daal gëm nañ ni Amadou Ba c'est un excellent candidat gëm nañ ni am na bilan fi muy sukkandiku boo xam ne kenn adduna bi yëpp ràññee nañ ko président Macky Sall moom ci vraiment jaar-jaaram rek bu joxoñ joxoñee nit ñun gëm nañ ni Macky Sall duñ joxoñ koo xam ne. Hmm. mënul te ah, Amadou Ba li ma ko xam man ci li ma ko xam. il me rassure et je gëm ni wa Kolda man dama koy rassurer ne fula du mom ñu ngi ginnaawam. wa baax na léegi dinañ xol en tout cas yéen a ngi campagne di melni kuy tour lëndëm askan wi maké ngi ki duggu nee na leen démb na fa duggal 600 milliards di digéti te digé yu njëkk yooyu yu ci bëri euh, matul xam nga ça aussi c'est compliqué quoi. Euh, gis nga Babacar bu dé deug deug rek moy tax ñuy wax boo demoon Kédougou tay nga xool Kédougou 2012 ak Kédougou 2023. da ngay wax Macky Sall gàcce ngalaama ah. ma Macky Sall ah, parce que yow di nga fa gis ne hôpital bu ñu fa def Kédougou waa Kédougou mosuñu xalaat ne dañu am hôpital boobu tali yu ñu fa am mosuñu xalaat ne dinañ ko am problème ndox bi amoon gu ni ñu ko réglé mais kenn mosul gëm ne dinañ ko réglé loolu donc yàlla waa Kédougou ñoom comme foofu lañ dëkk xam nañ loolu loolu moo tax ñu tertu Macky Sall tertu bi nga gis noonu te incha allah dinañ gunge Amadou Ba pour euh, le plan Sénégal émergent mu continue ma tertu Ndiaga Ndiaye aussi moom yomb na quoi monsieur le ministre. ñu ngi yow loolu yaa ko wax de. waaw jërëjëf Moussa Baldé ministre enseignement supérieur Georges jërëjëf jërëjëf Fatick.